mu jóge woon fi nag doon ne day dem màggali Sénégal bi mu demee Sénégal ñun liñ ci jot am mooy dem na foofu ak otoom ah policiers yi ko mu am li fa xew ñu yóbbu ko garde à ñu ne ci garde à la décédé ñun noonu lañ déggee wax bi mbir mi doon lu tiis lool lool lool lool rëy ci ñun parce que ñun li ñu mënul comprendre mooy Euh, Cheikh nekk na koo xamante ne xamaluñu ko fitna xamaluñu ko lu bon xamaluñu ko leneen jóge na fi dem màggal màggalu sëñ Touba mu tax mu def xaalisam dem Sénégal réew mi mu dëkk jóge fa bëgg réewam dellu foofu lu mel ni dal ko ñun nag liñ ciy sàkku mooy justice def liggéeyam ñu def lumière sur cette affaire là parce que métti na yëpp yëpp yëpp yëpp daanaka ñun ñoo ngi fas yéene def benn marche bu rëy Paris fii waaw ajjuma bii di ñëw dinañ ko wàcceel kaamil kër sëñ ba bu soobee yàlla euh, di wax rek ne bépp sénégalais bu nekk ci diaspora bi ñu ngi lay alerté wax la ne fan yi dinañ ko defal benn marche parce que mbir mi lu ñu war a leeral la mbir mi dañ ko war a leeral ci biir loolu nag euh, du ñu def lu dul dox rek dem laajte laaj voisin mi ndax euh, Cheikh moom nekk na koo xamante ni ñëpp xam nañu. bonsoir les amis. vous allez bien. ça va bien. bien euh, vous connaissez votre voisin ici. oui Cheikh moi j'ai pris hier depuis depuis hier je suis pas bien. oui. franchement c'était quelqu'un de quelqu'un de bien depuis on s'y connaît. oui. Euh, il était vraiment gentil toujours il était là travail depuis. Hmm. Quand on parle, il me parle de Sénégal. Tu hmm. vois, toujours, c'est quelqu'un qui, qui, qui, qui bien aimé son pays. Hmm. Mais depuis hier, depuis j'ai appris, ah, je suis pas bien. Les nouvelles. Ça va sur tout le monde. Hein? Bah après, moi j'ai vu sa femme, elle est, elle est, en train de pleurer, il a des petits enfants. Mm. Tu vois, franchement, c'est vraiment triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Ben, on m'a dit, oui. il a un problème avec, avec police, après oui. il a décédé en prison. Ouais. Bah, moi, j'arrive pas à comprendre parce qu'il était en, en bonne, bonne santé. Donc, ah, oui. Il était en bonne santé, comment dans deux jours. Mm. Franchement, moi, je comprends rien du tout. D'accord. D'accord. Euh, Et son état d'esprit quand il partait en euh, vacances au Sénégal Il était bien, il m'a parlé qu'il part là-bas, j'ai en fait Magal, euh, j'ai en fait religieux, mm -hmm. il part là-bas mm. pour, euh, pour la fête. Mm. Et après, et vous avez appris tout d'un coup. Oui, sa femme, elle était là. Elle était là vraiment depuis, depuis que j'ai pris, je suis pas bien. D'accord. Donc vous, c'est monsieur Moi, je m'appelle Ozer. Ozer. Oui, on est une trois ans, on est ouais. D'accord. Monsieur Ozer, ben, écoutez, on va essayer de faire euh, une manifestation pour que la justice fasse son travail, bien pour qu'on fasse une lumière sur euh, l'affaire. et on vous, on vous dit bon courage. Et bah, vraiment compassion. J'aimerais bien, parce qu'on on, on lui a perdu, mais j'aimerais bien si on peut, mm. on peut avoir euh, juste. Mm. Si on peut avoir euh, justice pour sa famille. Oui. Voilà. Ceux qui souffrent beaucoup. Mm. Ben écoutez, ouais. nous on fait confiance à la justice sénégalaise. Ouais, on sait qu'à chaque fois, ouais. ils, ils font leur boulot. Et maintenant, sur cette affaire-là, on pense que vraiment, ils vont tirer les choses euh, au Parce que là, il le faut, parce que Cher, c'était Cher de tout le monde. C'était un travailleur un qui se battait tout le temps. C'était un disciple de Serigne Touba et il était, de témoigner, il était, il était quelqu'un Et on vous reviendra très pour vous apprendre les non, nouvelles. J'aimerais bien. Merci, beaucoup. Euh, comme niñ ko gisee euh, ñu egg ci soxna Seynabou salaamaaleykum soxna Seynabou na ngeen def bay faal na ngeen def waay ça va da nga am jàmm ñu sant alhamdulilah dañ doon def benn reportage bu ndaw ci sëñ Cheikh Cheikh Yass waaw euh, xamante woon ngeen waaw wax dëgg yàlla Seex de xamante woon ne maanaam sama dix-huitième bii may taxaw nii man ginnaaw yàlla yéen di moom moo fi moom moo ma fekk ël ne ne ma Baye ci ngay toog sa place kaa ñu dem def liggéey yi maa ngi sama magasin waaw ba jël bi laa ñëw fii nag topp ci tànk maag moom ñu doon nekk ci magasin bi fii ak bëccëg waaw sama waay la sama rakk la bu baax la nekk taalibe ñu bokk ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaw chaque màggal dina indi ab gàttam indi ay xéwal man bi loolu laa ko xamal ci lu baax ak neex direct baax. yéen noo leen yéegee décès woom décès bi daal démb. démb daal ay côté après timis bi nii. ci laa ñëw fekk maa ngi woon fi journée bi yëpp. maa ngi doon jabar ji di ko wax madame Baye Fall ma wax bii Baye Fall. Mm-hmm. laa ñëw rek am benn mag bu nekk fii muy Zeyna. Mhm. ne ma ndax yëngalu xew ma ne ko waaye bàyyi ma waaye man damaa sol mu ne ma Cheikh lañ wax dafa gaañ ma ne ko non non Cheikh barki dem ba muy dem fii la ñu taxaw man ak moom. Mhm. maa ngi soloon benn jasneer mu ne ma jox ma lii ma dem ci bërëbu sëñ fàll wi. Mhm. nga wax ma lan nga bëgg ma def ma ñaanal la ko ma gàmm. wallaahi azim nii la tàggoo man ak moom. xamee ko lenn luy ñàkk fayda nag magasin bi xam nga ko am biir dix-huitième ñàkk koo fayda am beneen crédit hmm. ñàkk koo fayda di dawal ay Porsche Cayenne hmm. kooku doxul ci ay caaxaan waaw man nag li may wax mooy waa Sénégal ñoo war a xam li ñuy def fan lañ koy teg ñun ay Sénégalais lañ comme moom ni mu ko waxee ni ma déggee ne problème bi noonu la amee ñun Sénégal mooy suñu réew fii dañ fi ñëw pour ut lu ñu am rek dañuy dellu suñu réew soxla soxlawuñu fi dara lépp lu ñu am ñu ngi ko teg ci maanaam yóbbu Sénégal donc ak nu mu mënti demee police yi suñuy mag ñoo fa nekk suñuy rakk suñuy jarbaat suñuy nijaay suñuy papa mais lan moo tax mun ñu doon benn moo gën lu ñaaw lii nit ku tagg dagg biyam jël ay millions chaque jour bu ne ma damay dem màggali wax ma li nga bëgg ma dem bërëbu sëñ Fallou ñaanal la ko ñu gën ñëw wàcc Sénégal ñu ne la doo màggali dina def garde à loolu rek lay na nit waxuma laa te kii ab Baay Faal la barke Sëñ Fallu man lii rek laa ko xamal waaw naqari na ma nag ba ci kanamu yàlla man ñi su ma fa fekkoon di ma reyaale barke Sëñ Fallu ndax fi ma toll ak moom wallaahi azim ah euh, yow kañ nga gëj a gis Cheikh euh, xool le vingt non le le le dix-sept le man ak moom ñoo taxaw fii ci angle bi chaque jour que jëfee chaque ngoon ñoo taxaw mu may laaj sama benn jarneer bu zone ne ma lii laa bëgg nga jox ma ko ma dem ci bërëb suñu taal ñaanal maanaam umpale wuñu ci dara. mais boobu wéeroon na amul benn problème. wallahi azim amul lenn luy wane ne kii dafa tawat wala lenn musuma xam ci moom tawat. d' bay Baye kon mbir mi yow lan ngay wax police senegal ak sénégalais yi. mbir mi euh, dañ ko war a leeral. dañ ko war a leeral loolu lu mënta ñàkk la. leeral gi moom dafa war a nekk benn. bi njëkk mooy maanaam président bii nga xam ne ni moo ñu jiite yàlla def mu jiite ñu muy Macky Sall. lii daf cee war a taxaw. lii dafa ñaaw parce que maanaam ay doomu sénégalais ñooy reyante seen i mais ñaata nit la ñuy rey ci ñu ne police la rey te du jëm fenn loolu pour lan sëñ bi loolu rafetul. Baye Fall ñoo ngi lay masawu coono. jërëjëf di la sigi di la wax sigil ndigaale. sigi sa wàll. Eh, te dégg nañ ne da nga koy waaj a wàcceel kaamil. waaw lundi bii di ñëw. waaw ku ci topp. incha allah rabbi ñun Baye Fall yëpp kër Serigne lañ koy wàcceel kaamil. di ñaanal ko ndax dafa nekkoon ci liggéeyal Serigne Touba moom. waaw jërëjëf dinañ ci teew bu soobee yàlla. te eh, manifestation bi gars yi di waajal. dinañ ko waajal incha allah su amee date dinaa la ko wax suñu xëyal. d'accord jërëjëf kon ñu ngi gis nekkoon ku baax ku takkoon ci moom ndeysaan soxna Seynab ñoo ngi lay ziar di la wax sigil di ci li nu bokk ah, yow sa relation ak Cheikh la ñu bëggoon nga waxtaanal ci ban genre nit la woon ak. Euh, Cheikh daaw ku baax la woon ndax man ni may ubbi. Mm-hmm. man ni ma la gis laa mu numéro mm-hmm. nit. li fekk wax dëgg yàlla. Mm-hmm. nit ñi di liggéey bu rafet bari ci connaissance boobu ba léegi nag ñoo ngi ci jàmm heure bu egsee ba bu gaaree ba la dugg magasin fii la dugg naan ma yaay faal. Mhm. ñuy kaf di ree et tout mhm. donc mosul am na kenn problème man mos ma ko fekk si koñ mu nekk ci système bi ba si mu mhm. am beneen magasin ne ma dama am beneen magasin waaye fii kat man faa jabar ji fi mu mel nii jabaram nekk. donc ñun amuñoo moom benn jafe-jafe mosuñu ko gis tamit pour amal jafe-jafe. nekk ñu koo xam ne nag taalibe la nag wax dëgg yàlla bëgg sëriñ bu baax nekk bàyyi xàll wax dëgg fa yàlla mm-hmm. di liggéey liggéeyam nag te nekkul ci dëkk bi di taxa mm-hmm. kon nag lu mu am Sénégal ak lu mu fa mën a def rek mérito na ko ndax kenn gis ko ci lu mm-hmm. ñëpp nag wax dëgg yàlla dañ ci ñëw nag pour liggéey am suñu sañoon tey lu ñu am buñ koy jiitaloo rek Sénégal dañ ko yóbbu waaw parce que Sénégal la ñu am ku fa dem di dawal oto ñu nangu wala ñu lay laaj ay carte grise wala leneen nga si am problème nag boo oto boobu doo ko dawale fii Sénégal dañ ma ko yéene mu rafet nga bokk ko say bokk parce que loolu rek lañ wut si fii ay waaye nag toujours dañuy dem di am problème yi mel noonu xam nga tey suba ñun ñu ngi ñëw fii di fi ñëw jeudi vendredi ñuy waxtaan mu ne day dem Sénégal mhm. taxaw fii di waxtaan ak ñun moom lundi lay dem ñuy waxtaan ci loolu mhm. mu taxaw dugg sama biir fii ñaari fan yëpp daana ma basin laa bëgg loo may conseillé mhm. ma ne ko ah jëlal basin bu rafet boo demee mu ne ma noog mooy ñëw sax laa ko bëgg a ñëw mhm. mais wutalal ko la ñuy waxante fekk mu gaari si ne ma noonu maa ngi am lu may di jënd maa ngi ñëwaat daa dem ñëwaat gaare dugg ci fii taxaw ñuy waxtaan mhm. mu ne Baye Fall yow sa basin bu jaune bi laa bëgg nga jox ma ko moom laay wàcce Sénégal del belu bi sëñ Fall ñaanal la ko nga wax ma loo bëgg mhm. lii kat nii ci biir maa nga sama biir maa mhm. lii lan tàqal kooku démb lan toog fii may julli timis am ko dugg taxaw fii na seex ndax seex ñaar dafa yaa